Ndongo Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. waaw nga nekk secretaire général bu CUSEMS des de unitaires des syndicats d' enseignants du moyen secondaire ñu gis ni nag système universitaire sénégalais bi euh, littéraire yi ñu ëpp lu bari euh, scientifique yi ban analyse ngay def si euh, mbir moomu la. analyse bi ñuy def mooy que ni loolu li ko waral lu bari la. benn bi moom mooy que soo duggee suñu école yi. Euh, professeur yu doy amu fa rawati nag professeur yoo xam ne dañuy jàngale discipline scientifique yooyu loolu tali bi moom mooy que day tax xale yi tàggat bi leen waroon tàggat nombre de waxtu bi nga xam da leen ko waroon tàggat ci discipline yooyu mais duñ ko am da ngay gis classe boo xam ne bii dafa waroon def six heures de mathématiques hebdomadaire ñu wàññi ko ba muy def quatre heures wala muy def trois heures da ngay dugg ci école yoo xam ni daa daañu toog lu yàgg ci année bi du ñu am ay professeur de mathématique ba finalement dañuy obligé dem ci université wala dara recruter ay jàngale ay étudiants yoo xam ni peut-être kenn formé wu leen sax pédagogiquement comme professeur yi nga xam dañuy jaar ci école de formation yi ñoom ñooy ñëw di leen jël en charge am na beneen euh, raison bu ko mën a expliquer moom mooy également ni ñuy orienté boo xoolee suñu école yi ni ñuy orienté dañuy xool xale yi nga xam ni vraiment am nañu ay résultats yu paax dans les disciplines scientifiques ñooñu la ñuy yóbbu ci série scientifique mais élèves yi nga xam ni dañu xaw a moyen bare na ci ñoo xam ni dañ leen di yóbbu dans les séries littéraires alors que xëy na mënoon nañu teg benn dispositif bu ñu leen di encadrer bu permettre que ñu bonifié wu dans ces disciplines scientifiques resté ci série yooyu maintenant loolu moom moo amul ba moom moo tax aujourd'hui ñu am soixante quinze pour cent de bacheliers littéraires contre simplement euh, vingt cinq pour cent donc de bacheliers euh, scientifiques or réew xam nañ ni pour mu développer il faudrait effectivement que mu am ay scientifique yu bare yoo xam ni recherche yi ñu def ak résultats yi ñuy produire day permettre euh, défi yi nga xam ni yëpp mooy posé wu au pays mën a apporter réponse yi nga xam ni moo ñuy permettre ñu rek Euh, tey jii euh, Ndongo Sarr euh, lan moo war a mën a pousser élèves yi ñu gën a adhérer ci série scientifique yi. mais mooy d'abord que euh, très tôt si seen jeune âge ñu def de sorte que la culture scientifique ñu inculquer leen ko il est vrai que am na aujourd'hui une direction au niveau de l'enseignement supérieur buy occupé wu de ça mais ñun dañ jàpp ni liggéey boobu des na loolu mooy benn deuxièmement il faudrait que école yi ñu def de sorte que euh, professeurs yiy jàngale discipline scientifique yi mais ñu recruter ci conséquemment conséquemment ba xale yi vraiment mën a jàng si discipline yooyu euh, waxtu yi nga xam ni moom la ñu war a jàng il faudrait également que ñu def de sorte que ci école yi effectif yi nekk ci classe yi et loo xam ni li koy expliquer mooy ñàkkum professeur bi que effectif yooyu ñu mën leen réduire par un recrutement conséquent de professeurs bu booba encadrement bi dina permettre que xale yi ñu ci bare gën a amélioré wul ci discipline yooyu nga xam ni moom mooy discipline donc scientifique. Euh, tey jii euh, maanaam waajur bi euh, lan moo war a nekk rôle am ci xale bi ngir mu mën a adhérer ci série scientifique yi. waaw way way jur bi en fait moom li mu mën a def moom mooy di encadrer doomam parce que njàng mi nag du ci école bi kese xale bi su jógee école day ñëw ci kër yi am na ay exercice yoo xam ni daf ko war a def parent bi mën na veiller à ce que xale bi di ko def mën na également wut ñoo xam ne dañ koy jàppale ci loolu pour que mu mën a euh, bonifier wu ci discipline bi maintenant damay profiter ci ci euh, interview bi pour dénoncer loo xam ni ministère de l'éducation nationale daf ko def. parce que dañu tere cours d'encadrement yi nga xam ni yii moom lañ doon def ci établissement yi nga xam ni ñëpp manqué woon nañ ni kat résultat yi ñu am at yi weesu lu ci bari loolu moom moo ñu ko mayoon ministre bi daf ko tere parce que nee na dafa bëgg mu am équité entre les les élèves parce que dafa am ay élèves yoo xam ni daañu mën a fay ak élèves yoo xam ni donc du ñu mën a fay alors que ñoom seen bopp amu ci kenn koo xam ni kii soo amee doom buy jàng. un boo ko yóbbu ci école privée boo xam ne bii condition ya muy jànge moom moo gën condition yi nekk ci école publique di benn deuxièmement ñoom ñëpp dañuy jël ay jàngalekat dans les différentes disciplines ñu wut ñu ñëw di encadrer seen doom si seen école mais maintenant euh, sénégalais lambda bi nga xam ne xëy na peut-être moom loxoom jotul digg ginnaaw ñu ko doon laaj cinq mille francs pour encadrer doomam si ñetti discipline mu jaral ko ko di di ko def aujourd'hui loolu la ñu tere li ñu tere moom mooy que euh, fascicule yi nga xam ni ay collègues dañ ko doon defar donc di ko jaay parce que école yi amul les manuels amul les outils didactiques yi nga xam ni moom moo doon gën ñoŋal jàng bi fascicule yooyu ñun mënoon nañu comprendre que ministère bi nii ah dañu teg benn dispositif kat boo xam ni ku def sa fascicule da koy ñëw joxe ko fa ñu saytu ko ba xam ni kat lii xëy na peut-être jaar na yoon. mais tere que noonu pour ñu loolu nekkul loo xam ne nii dina dem dans le sens de effectivement def de sorte que ñu inverser tendance bi ba am beaucoup plus de bacheliers scientifiques. est-ce que li ñuy wax dëgg la que série scientifique yi ñoo ëpp débouché série littéraire yi. waaw xëy na peut-être euh, loolu am na benn moment boo xam ni doon na valable mais je crois que li ko doon gën a expliquer c'est que comme ñoom ñoo doon gën a tuuti comme ñi doon am bac. es ñoo doon gën a tuuti euh, ñoom dañ doon confronté wu beaucoup moins au problème d'insertion au problème de de débouché mm-hmm. mais beneen aspect bi moom mooy que euh, depuis quelques années gis nañ ñu tijji ci réew mi ay instituts yu ñuy wax institut supérieur d'enseignement professionnel et gis nañ ni instituts yooyu am na ay xale yu bare yoo xam ni bachelier L lañu yoo xam ni orienté nañ leen ci ay filières yoo xam ni yaakaaroon nañ ni kat ñu ko mën a def te xale yooyu ñoo ngi réussir donc ci filière yooyu donc man li ma gëm moom mooy que ak institut yooyu nga xam dañ ko war a bareel ci réew mi pour le moment juróom benn rek moom moo ci am am na yeneen juróom-ñett yoo xam yi ñoo ngi koy waaja a euh, ñoo ngi koy waaj a tijji mais objectif bi moom mooy que quarante cinq départements yi nekk ci réew yëpp ci réew mi yëpp département bu nekk am benn ISEP loolu xëy na peut-être suñ ko defee problème mu débouché boobu posé wu. mais maintenant beneen aspect bi benn directeur bu ma doon wax waxtaanal ci ci loolu dafa ma wax ni ma mën nañu également teg benn dispositif boo xam ni xale yi nga xam ni dañu am baccalauréat série te xëy na peut-être discipline scientifique yi nga xam ni dañ ko soxla pour mën a dugg ci yenn filières yooyu même dans ces instituts il faudrait que après bac mu am ay classes préparatoires yoo xam ne xëy na peut-être daañu leen fa mën a tàggat gën leen renforcer dans ces disciplines pour leen orienter ci métiers yooyu ñu bañ am benn difficulté. est-ce que tamit amul euh, benn politique boo xam ni état bi war na ko teg pour di motiver élèves yi euh, surtout à basage ñuy mën a euh, gën a bëgg série scientifique yi plutôt. waaw loolu mooy li mu la wax sànq mooy ñu développer la culture scientifique nga xam ni xale bi ci ndawam. Mhm. déjà lañ koy intéressé. Mhm. ci lool wax naa la ni la am na benn direction au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui s'occupe de ça mais ñun dañu jàpp ni xëy na peut-être liggéey bi. Euh, sooxee na tuuti et que su doon jox nañ ko davantage de moyen peut-être que euh, su defee liggéey bi ci réew mi loolu mën na permettre effectivement ñu inverser tendance. Euh, ngir xeex lu ñuy wax fuite de cerveaux état wu Sénégal lancé na fan yi lu ñuy wax ay classe préparatoire sa xalaat ci classe préparatoire yooyu. waaw lool lu baax la dañ koy rafetlu parce que classe préparatoire yi amoon na fii déjà bare woon na ay école privée yoo xam ne dañ doon organiser mais pour ñun loolu du régler problème bi parce que xale yi suñu leen tànnee ba yóbbu leen ci classe préparatoire yooyu tàggat leen fa ñaari at su dee amul ay grandes écoles fii ci réew mi yoo xam ni xëy na peut-être mën nañ fa dem pour def formation yu ñu war a def bu boobaa itam dañuy obliger après les deux ans dem étranger te su ñu demee étranger ba def fa formation euh, risque bi également am na que ñu des fa d'autant plus que bare na ci ñoo xam ni dañuy dem jàngi bitim réew ba dellu si mais suñu dellu see fii mais pour ñu insérer wu c'est extrêmement difficile et loolu moom mooy tax finalement de guerre las ñoom itam dañuy obligé delluwaat donc je crois que foofu itam ci problème mu euh, insertion bi ñoom suñu ñëwee vraiment état bi war na def liggéey boo xam ni bi dina permettre que xale yi bis bu ñu dellusee pour servir seen réew que ñu bañ fi nekk di di essuyer ay ay ay ay refus nee naa la quelquefois pour stage sax non rémunéré ñu am ko day difficile. Mm-hmm. mais yooyu suñ ko réglé xale yi itam ñu am beneen alternative bu dul dellu en fait si réewu tubaab yi nga xam ni quelquefois avant ñu fay jógee sax ñoom dañ leen di proposer liggéey. wax ji foofu la nekk. léegi ñu gis ni euh, Sénégal ñu ngi wax ni am na pétrole am na gaz exploitation bi yàggul dara est-ce que mm. système éducatif bi mi ngi préparé ay ay ay ay ay nit euh, pour ñoo xam ni dinañ mën a liggéey ci wàllum pétrole ak gaz est-ce que ñu ngi préparé wu par rapport à sa bon am na bon am na euh, institut national du gaz et du pétrole boo xam ni ne tëj nañ ko mais pour ñun dañu war dem encore beaucoup plus loin je crois que c'est à l'échelle des établissements de formation, des écoles de formation, qu'on doit systématiser la formation à ces nouveaux métiers yi nga xam ni day euh, euh, exploitation pétrole bi exploitation gaz bi exploitation ressources yi ñu am yëpp dina tax mu am fii ci biir réew mi loolu dañu war a former systématique sinon lii am mooy dañuy obligé dem di jëli ay nit bitim réew ñuy ñëw fii te li mu ñuy coûter moom mooy gën a cher fop su doon dañu tàggat suñu ay ndaw ba ñoom seen bopp ñu mën a def liggéey boobu. Euh, atum ren mën nañu am yaakaar ni grève yi dina barem du bari Ndongo Sarr. waaw loolu nag dafa dépendre si ñun syndicat yi ñun dañu signé ay accord avec les autorités lépp li nga xam ne suñu wàll lu ñu war a respecté ñun daañ ko respecté maintenant li ngi des ci autorités yi ñu respecté seen wàll su respecte respecté ñun seen ay engagement ba pare ubbeeku pour waxtaan. ak partenaires yi nga xam ni ñun moom la ñu doon pour que question yi nga xam ne yëpp dafa nekk en suspense parce que bare na ay question yoo xam ni également il faut que ñu régler ñu mën ci waxtaan trouver ay solution jàmm dina am ci école bi loolu nag su amul ñun mënuñu jël engagement di wax ni stabilité dina am ci école bi. Ndongo Sarr maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jërë jërëjëf. waaw may fàttali yow yaay secrétaire général bu CUSEMS des di unitaires des syndicats d'enseignants du moyen secondaire. ok merci beaucoup.